wanfacna bima callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bay jaar ci waxtu wi ngeen di si ànd seen mbokku Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala yi mooy suñu technicien technicien bi di Bachirou Cissé mbokk yi ñu bokk sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buur bi nga xamante ne moo yeeyoo mboolem cant ndax sànq ci ginnaaw rekk ñun doon joxe xéewal ju mag bam ñu xéewalal te mu doon julli suba wala julli fajar ñu di si jàng fatihatul kitaab gannaaw bu imam kàbbare mu daldi di fatiha mu tàmbalee boppu sarwi ci bismillahi rrahmani rrahim teg si alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dallin ginnaaw bu imaam kabare baat yi la ci teg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu duñu wax ci maana hadis julli kenn du jàkk lu dut dafa jàng fatihatul kitaab moo tax mu ne ñu la salaata liman lam yaqra'u fatihatul kitaab kenn ci yeen julleem du jàkk lu dul dafa jàng la nga xamante ne mooy fatihatul kitaab buñ ne fatihatul kitaab nag ñu ne mooy alqur'an buñ ne ñu ne mooy téere ba tukkee fa yàlla bur yàlla baaxee ko suñu sang bi alayhi afdalu salaatu wa azka taslima mu jox ko ci fatihatul kitaab mu nekk lay ubbi alquran wala lay ubbi julli la nga xamante ni mooy ubbite ci lépp turu saar bi ci boppam wone na boppam te mooy alfatiha waaw mooy lay ubbi caabi yi nga xamante ne day ubbi almiftaax mooy caabi lakin fatiha mooy lay ubbi lay ubbi nag la muy ubbi bari nañu lool waaw moom dong moo am dayo bi ni mel ba tax na yenentu bi nañu amul kenn ku ko mën a bañ a jàng ci julli lu dul sa julli duñ ko accepté waaw ba tax na xéewal boobu ñu yàlla xéewalal mu doon julli bu ñuy julli ci ginnaaw imam waxtu su néew mooy julli boobu ñu daan def ñu am ci ñaari rakka yonent bi nee nañu ci maana hadis julli ñaari rakka yi suba wala juri ñaari rakka yi fajar moo gën àddina ak li ba ñu jëlee ñaari rakkay fajar teg ñu jël àddina ak li biiram teg àddina ak li ci biiram du peese dara dara dara par rapport ñaari rakka ya jullit yi daan joxe waxtu su néew ci ginnaaw na mu amee dayo fa yàlla ñaari rakka yooyu bu fekkente ne dindi nañu kashf dindi nañu kiirlaay ci kanamu jullit ñi bi ñu gis ñaari rakka yooyu wallahi summa wallahi jàkk yi fajar bi day mel ni vendredi jàkka yi ci waxtuyu fajar day mel ni bésu ajjuma na jàkk yi di mel jàkk yi day fees fajar ba nit ñi di lal ci mbedd yeeg ci yoon yi waaye ñàkk xam valeuru ñàkk xam njëriñ ba nekk ci julli fajar ñaari rakka yooyu ya jullit yi doon joxe waxtu su néew ci ginnaaw ñàkk kaa xam moo tax jàkka yi di yaraax léegi-léegi nga gis yenn jàkka yoo xamante ne danga naan est-ce que jullit yi ñu ngi ci quartier bi ah gañ jullit yaa ngi ci quartier bi de seen néeg yi balcon yi tiim jàkka ji ñii seen balcon bi micro jàkka ji moo jàkkarloog seen néeg ba ñuy fanaan kon ñooñu kenn du wax ne duñu dégg noddukat bi ba leen doon wax ne salaatu xayru mina nawmi ah kañ dégg nañ ko de dafa fekk ne rek balaa ñu doon tëdd tëdd ñu comme naka yonent bi jàngale seytaane ñëw yeewu leen ñetti yeew ñetti takk-takk yooyu la yonent bi ne seytaane day takk ñetti takk kenn ci yéen gannaaw bu mu sóoboo ci nelaw buñ ko doon joxe misaal yonent bi nee na day ñëw ci bopp bi mu takk benn yeew mu yeew fa benn takk-takk mu ñëw ci sa digg bi jël sa loxo beeg sa faare takk ko mu ñëw ci sa tànk bi takk la yeew la ba nga ne ngot waaye yonent bi nee na képp ku ximmiliku ci nelaw bi nga yëg sa bopp nga xam ne man de dama doon nelaw nee na na tudd yàlla na nga ne subhaanallah allahu akbar laa ilaha illa xeeti baat yi boo ko waxee rek yonent bi nee na la seytaane takk ci sa bopp bi loolu dañ na nee na boo jógee dem ci toilette bi daldi jàpp nee na ñaareelu takk bi dañ na nee na boo jullee ñaari rakkaa ci sa biir néeg ci guddi googu nee na ñetteelu takk bala seytaane yeew dañ na léegi takk-takk yàlla seytaane takk loolu la seytaane yeew lépp dañ na yonent bi teg si nag ne la boo jullee fajar wala nga julli suba su ko defee bés boobu dangay ngay doon bolom ruux bu bu bu nekk am forme sa ruux bi day nekk am form ruux bay fonsonloo jëmm ji jëmm ji day nekk am forme maanaam ci gàttal da ngay doon ku mise à jour sa bopp da ngay doon keneen koo xamante ne da ngaa formaté sa bopp waaw da off après formaté sa bopp comme nu ñuy formate téléphone waaw da ngay da sa bopp da da ngay nekk nit ku waaw moo tax yonent bi nee na sa bakken bi day teey day nekk bakken bu ñoŋ waaw da ngay bëgg lépp lu yàlla sandaane yonent bi digle ko waaye da bañ lépp loo xamante ne seytaane moo la si yóbbu hakaza nii ngay déggee maana hadis bi day fekke ne nag nga tëddee comme ni ko yonent bi santaane boo yeewoo nga yeewu comme na ko yonent bi santaane su ko defee nga tuddu ñaan ba ñuy ubbee suñu waxtaan bi alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur mbooleem xëyitu cant yu kawe ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne moo ma delloo sama ruux gannaaw bu ma faatee ci nelaw te ci moom lay delloo mbokk yi lii ku dul jullit ana ko am lii kenn bu ku diine bu dul diine islaam ana wan diine moo am nii amul kon nañ leen xam lu ñu yor nañ leen xam lu ñu nekkee ba tax na bi léegi ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 ñu bëgg leen dégtal suñu diine bi nu mu amee dayoo fa yàlla na mu amee dayoo ca malaaka yi malaaka bu mag généralu malaaka yi ki ñu naan jibril alayhi salaam moo musa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñëwut ñaan ko leen ñëwut waxtaan ak moom ci waa màkk ñëwut waxtaan ak moom ci doomu aadama yi seeni nekkin ñëwut waxtaan ak moom ci jullit ni waaye la tax jibril alayhi salaam ñëw waxtaan ak yonent bi sallallahu ki ko bëgg a xam nag ñu topp ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji su ko defee ñu bokk déglu la Jibril doon waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu concerné suñu mbiru diine ba nga xamante ne yàlla moo ñu ko wërsëgal ñu di ko dund jaayuñ ko lebaluñ ko te du ñun ñoo ko wax ne def ñu jullit kon tànneef bu ñu yàlla tànn mu def ñu jullit yàlla ñu yàlla nangu lépp luñ koy jaamu ci diini bi nga xamante ne mooy islaam allahumma aizza al wal muslimin allahumma aizza al wal muslimin allahumma ansur man nasara diin allahumma ansur man nasara diin amin yaa rabbal alamin yal na yàlla taxawee képp kuy taxawee diine yal na yàlla taxawee jullit ñi te mu xettali leen ci lépp loo nga xamante ne tolof tolof la ñu ngi koy dund amin yaa rabbal alamin mbokk yi kon nañ leen bokk déglu la jibril alayhi salaam waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa bi léegi mu bokk ci xéewal ya ñu yàlla dottil jalla wa ala sa'ala jibril alayhi salaam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma li ihsan qaal an tacbuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka mbokk yi yann jaami yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot malaaka su mag ci sapp malaaka général ci malaaka yi malaaka bu am place bu kawe ci malaaka yi mu doon malaaka bu ñu duppee jibril alayhi salaam moo ñëw laaj yenentu bi sallallahu alayhi wa lam ko doon laaj mu ne ko mal ihsaan ana lan mooy rafetal waaw jibril alayhi salaam moo ñëwoon laaj yonent bi mu ne ko mal ihsaan ana lan mooy rafetal rafetal mooy lan waaw rafetal ci boppam laa bëgg nga détaayel ma nga décortiquel ma rafetal allahu akbar mbokk li jibril laaj yonent bi ñaari mbir la nañ leen xool mbindaa yàlla ba di malaaka waaye malaaka boobu ana wan ran am ci ranwu malaaka yi te ñu ne mooy jibril alayhi salaam mu doon malaaka bu am ran bu fort ci ranwu malaaka yi mu doon général mu doon malaaka bu kawe ci malaaka yi mu doon malaaka bi nga xamante ne moom la yàlla di jox alquran mu di ko wàccel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullit yi di ko jàng ci suuf bokk na ci rangu jibril mooy malaaka ba nga xamante ne moo fekk suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog si xuntu ba bu ne ko iqra <laughs> jàngal kii mooy jibril alayhi salaam kii moo bokk ci raw malaaka yi alayhi kii moo fekk suñu yonent bi keroog ci xunt bi ne ko iqra jàngal malaaka bu toll ni kii moo ñëw fekk suñu yonent bi ne ko mal ihsaan ana lan mooy rafetal ana lan mooy rafetal ki bëgg a xam la ka bi tontu mbokk yi nañ leen bokk déglu la ka bi tontu sallallahu alayhi wa qaal yonent bi ne ko an taabuda allaha nga doon kii jaamu yàlla ka annaka taraahu mel ni yaa ngi jàkkaarloog sa borom di ko gis rafetal rafetal moom ngay laaj mooy an taabudallaha ka annaka taraahu na nga jaamu yàlla xeetu jaamu yalla ji ngay def na mel ni yàllaa ngi nii di séen walla yaa ngi nii di ko séen mu ngi lay gis ci loolu nga di ko jaamu buy julli na nga bàyyi xel ne yaa ngi nii yàlla ngay séenti sa julli bi booy joxe azaka nanga ko defar jekkal ko waajal ko ñoŋal ko mel ni yàlla nga lay séen nga di ko séen ci asaka ba ngay waaj a joxe noonu booy demam aji màkk na nga mel noonu ak sa boroom na mel ni yàlla ngay séen ci jëf jooju ngay jëf loo mun di jëf ci xeetu ibaadaat ci xeetu jaamu yàlla yi moo tax yàlla ne ci njeexantalu aaya koor kutiba aleykumu siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ragal yàlla bàyyi xel yàlla suuraale yàlla ci say mbir moom la yàlla soxla ci yow julit bi moo tax yonent bi ne jibril an taabudallaha na nga doon kii jaamu yàlla sa jaamu yàlla yi ngay def na doon kom ka annaka taraahu mel ni yaa ngi koy gis di ko xool fa in lam takun bu dee sa xol mënuta dëppoo ne yaa ngi gis yàlla nanga nga jàppane haa fa innahu yaraaka kon moom mu lay gis de moom lay gis te mu lay xool te mu ngi xam la nga nekkee waaw ñaari option la yonentu bi tegal Jibril ci tontu ba koy tontu ne loolu mooy rafetal na rafetal sa mbindin na nga rafetal sa nekkin nanga rafetal sa doxalin na nga rafetal sa jaamu yàlla mel ni yaa ngi seeni yàlla ci loolu nga di ko jaamu ci loolu nga koy jaamu mel ni yaa ngi koy seen yaa ngi koy gis bu dee sa xol ak sa xel mënut a daj loolee yonent bi ne nang ko bàyyi xel ne moom de mu ngi lay gis de patron bi nara liggéey loo employé bi mu ne la daal sa liggéey bi bu rafetee cent mille laa la doon fay bu sa liggéey bi baaxee ma fay la cent cinquante mille wala deux cent mille bu dee employé bi war na war na bëgg deux cent mille ba ko patron bi dikk ah day sóoraale patron bi ci liggéey bi ba tax na da koy rafetal wa illa mu defee ko kom bu patron bi ñëwee bu ko xoolee day xam ne ah sama waa ji tey li mu liggéey li mu liggéey baax na de waaw am na suñ benn góor gu mag koo xamante ne ndeysaan da doon tabax këram moom daal bu maçon di liggéey day absenté wu waaw bu yi di liggéey day effacé wu dem doxi soxlaam waaw 16 heures maçon yi wàcc nañ di heures rangé nañu bagage yi ah 18 heures paa bi daal di boot loxoom yore kurusam di doxantu ci sanc bi bu gisee li dal xelam keroog boo léegi ca ëllëg moson yi seen seen seen seen añ bi day neex waaw ndax day bëgg day xam ne defalal nañ ma fi lu ma neex seen liggéey bi jaar na yoon waaye bés bu mu demee ba gis ne li nga xamante ne kenn mënu koo xool di wax dara waaw keroog mason yi daal benn duñu añ wala bu ñuy añ tamit seen añ bi du doon añ bu jaar yoon waaw ndax toujours day xool ba xam mason yi bàyyi nañ ko xel walla bàyyiñu ko xel waaw moom noonu la doon rondé mason yi ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it daf ni Jibril ne rafetal boobu ngay laaj de mooy képp ku di jaamukatu yàlla te ngay jaamu yàlla na nga rafetal sa jaamu ni yàlla mel ni yaa ngi gis yàlla jamono bi nga koy jaamu ci loole muy aji màkk na rafet na mel ni yaa ngi gis yàlla ca anamu joxe wi ne azaka na rafet na mel ni yaa ngi gis yàlla sa anam ba ngay wooree weeri na rafet lool mel ni yaa ngi gis yàlla na nga sóoraale yàlla sa anam bi ngay dox tànk mbokk bu ko dara lal lu dul li wajhillaahi jëmu yàlla dong na tax xataa booy dem bay dimbali nit nang ko dimbali ndax jëmmi yàlla dong nga tax nga di ko dimbali waaw na nga yàlla ci sa mu muamalaat say jëflante wa tasarrufaat ak say melo ak say demalanteeg say dikkalanteeg say say say say communication say lépp xataa ñun mii di wax léegi-léegi nga dégg ku la ne toj nga fi waaye kii bi neex na waaw bayaan bi neex na waaraate bi neex na waxtaan bi neex na naam neex na euh, baax na waaye yan nañu yàlla may dégg ak topp nga ci war a teg waaw lu neex buñ koy dégg te duñ ko jëfee day mel ni ngelaw buy dugg ci paxu nopp di génne feneen fi mook looloo yem waaw ñu wax kii bi neex na xutba bi neex na ah, gamo bi neex na waraate bi neex na ah, langa nga waxtaane ci tant bi neex na waaye la ci am solo mooy yan nañu yàlla may dégg topp yan nañ ko yàlla dégguloo yan nañu ko yàlla man loo ñu di ko jëfe loolu mooy wax ji waaye nekk di tànqamlu neexaayu waxtaan wi su ko su ko defee dañuy bokk ci ñi nga xamante ne min alladina qaalu sami'na wa asayna waaw dëgg nañu de la yonent bi andi alquraan yonent bi dégg la lépp lu muy wax ci yàlla dégg la waaye ñoo lànk duñ ko jëfe loo ci mën dara ku ci mën dara dara waaye képp kuy dégg wax muy neex say nopp nga di ci yëg luy daw sa yaram nga di si yëg luy tooyal sa xol la sa war a teg mooy la yàlla wax ci gaañi rekk ci fin suuratul baqara wa qaalu sami'na wax nañ ñu ne dégg nañu de la yonent bi andi dégg nañ ko te ñu ngi koy déglu di ko dégg tamit waaye tamit wa ataana dañ koy jëfe de bàyyi leen bàyyi nañu def leen def nañu bul dem demuñu toog leen toog nañu ila axirihi wa qaalu sami'na yenent bi yow ñooñu ngay waxal ñooñu ñoo ne dégg nañu li ngay wax alquran ba ñuy wax dëgg nañ ko atte ya fa nekk dégg nañ ko te dinañ ko jëfe wa ataana dinañ ko topp de te dañ koy jëfe a bulen leen bokk ci gaay yi nga xamante ne wa qaalu sami'na ñoom de dañu naan yee yaay dégg nañ wahum laa yasmaun fekk ñoom dégguñu dara dégguñu tus waaw xeetu xaste la ba yàlla xaste aw xeet ñoom dañ ne dégg nañu fekk dégguñu dara loo leen di wàcc alquran dañ ne waaw mhm, mhm, maa ngi lay déglu mhm, nii la dara waaw déggul dara déggul tus wallahi bu jotaay bi tasee boo kon ne sëñ bi lam doon wax waaye fàttali ma man sax fàtte naa ko de déggul dara déggul dara day fotosu di yëngal boppam di wone ne mu ngi fi nekku fi moo fi nekk xelam ak xolam ak xitaram mu ngi feneen waaw ñooñu la yàlla di xas ñooñu dañ ne waqaaloo yee yaay dañ ne sami'naa dégg nañu la yonent bi di andi la yonent bi di wax lam ñu andi dégg nañ ko de yàlla ne wooxum la yasmaw dégguñu tus dégguñu dara bi dara booloo jeex waaw ñeneen kuréel bi nag yàlla xas leen mu ne ñu ñun jullit ñi bu leen nekk ci ñi nga xamante ne waqaalu ñoom it ñu ne yeeyaay dégg nañu ah waa sëy na waaye lu ñu dégg ñoo lànka bett di si naaj bi duñ ko jëfe kenn mënu ci dara loo ci man dara kon ñun fa ñu yàlla boole fa yàlla bugg ñu nekk fa mooy ña nga xamante ne dañu ne qaalu ñu ne sa sami'na dégg nañu la yonent bi dikkee jëlee ko fa boromam wa ataana pare nañ pour topp ko te dinañ ko topp macha allah lii mooy njeexantalu kàddu bi nga xamante ne képp ku ko dégg ba nga yëg yëg-yëg wu toll ni sa rongoñ di tuuru walla ngay fotosu wala sa xol di boo jógee def ci boo jógee nang ko melaw boo jógee nanko nga ko fu la kenn niggi sut ngay julli nanga rafetal sa julli bi ndax loolu la yonent bi tontu jibril an taabudallaha na nga rafetal sa jaamu yàlla bi waaw an taabudallaha na nga jaamu yàlla ka annaka taraahu mel ni yàlla ngi nii nga di ko gis ci loolu ngay jaamu yàlla fa in lam takun bu fekkente ne sa xol mënut a jàppane yaa gis yàlla na sa xol jàpp ne fa innahu yaraaka moom de mu ngi nii mu di la séen te mu ngi lay gis kon mbokk yi lii yëpp dadi loo xamante ne mu ngi ci suñu kanam ñu bàyyi ko xel euh, malaaka su mag ci sappe malaaka yi mu doon jibril alayhi salaam moo ñëwoon di waxtaan ak yonent ci suñu mbiru diine mu ne ko dama bëgg nga wax ma tegtal ma lan moy rafetal mali ihsaan rafetal de yonent bi ne ko mooy na nga jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis bu dee munoo ko takk noonee sa xol an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka bu dee sa xol munuta jàppane yaa ngi gis yàlla na nga jàppane yàlla moom mu lay gis su ko defee mu doon jëf joo xamante ne da nga koy sellal li wajhillah booy joxe da ngay suuraale yàlla ci anam ba ngay joxe booy maye dangay maye ci anam bi nga xamante ne danga nga ciy suuraale yàlla booy jaamu yàlla ci julli da nga koy defee di suuraale ne yàlla mu ngi lay xool mu ngi lay gis te xam na nanga fa nekkee ba tax na li la war yow jullit bi mooy nanga rafetal ca anamin boobu waaw xataa boo demee ba di rey gàtt ngir jëfandikoo ko parce que buur yàlla moo la ko tàggatal ah la ci bi digle daal mooy na nga rafetal reyndin bi xamal ne yàllaa ngi nii di la seen yaa ngi nii di ko seen ci gàtt googee kon na nga rafetal reyndin bi bu dee yàlla dalaa dénk ay njaboot na nga rafetal sa nekkin ak ñoom muy tuut tànk muy góor di jigéen muy njabooti soxna yi na nga rafetal sa jëflante ak ñoom waaye soxna si tamit ah bokk na ci tamit la nga war a taxawee na nga rafetal sa jëflanteeg sa borom kër waaw na rafetal sa jëflante sa borom kër na nga rafetal bàyyil xel yàlla ca la koy toggal bàyyil xel yàlla ca la nga koy jox la muy naan bàyyi xel yàlla ca la nga koy toppatoo ci lépp lu nga xamante ne da koy jëfandikoo moo xam liy dem ci biir la moo xam lu muy teg ci ñaari mbaggam yi la noo koy toppatooye noo koy sàmmee noo koy jekkalee nang ci am contentement bu toll ni bul bokk ci ñi nga xamante ne dañ ne sëy togg bokk ci contrat bi fóot bokk ci ila axiri yi waaye ñun suñu maame yooyu yëpp dañ koo taxañ dugal ko ci sëy ngir la ci meññee na am barke coono ba nga daj ci këru sa boroom kër waaw ñu ne waajur bu ne day ñulug doomam waaw xaw ma day ñulug jëkkëram waaye waaye waaye waaye sa doom ngay yekk waaw ngay ñulug sa jëkkër yekk sa doom waaw yekk nag boo ko yekkee ah bu neexee ñu apprécier ko waaye bu neexul tamit hmm, dañ naan waaw yow sa togg bi moom nu mu demee ni voilà ku ñulug sa jëkkër yëkk sa doom waaw kañ nii la wolof yi wax mu ngoog na ngeen jéggal ma ci kàddu gi lu ci dëng nag maa ngi koy jéggalu lu si jub ñu santee ko yàlla waaye nag lii muy li am su ko defee mu nekk ihsaan mu nekk rafetal waaye yow borom kër gi tamit ah ngelawaay bay génn ngir dem fàggu la ngay dugal say njaboot na sóoraale yàlla ca la ngay fàggu waaw bu dee liggéey la na ko defee nu mu ware bu dee li ngay jaay la bul triyande bul tappale bul dugal bokkul ci affaire bi comme ni ko gars yi di waxee bu ci laxas jaan waaw boo ci laxasee jaan bu la màttee laxas jaan bàyyil affaire bi nekk naturel rek waaw laxas jaan ci njaay moom wóorul ndax jaay bi moom bu demee bem ne la bem la bem la xaw a kii day day xaw a day xaw a doy waar waaw day xaw a doy waar su ko defee ñu bàyyi xel loolu waaw kenn du laxas jaan ci yenn yi waaw jaan moom kenn du ko laxas yi dara su ko defee loolu mooy la nga xamante ne mooy la leen euh, réew mi fm andin ñu ñaan yàlla suñu borom jalla wa ala an yaj'alana min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslihillahuma aimatana wa wulaata umuurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma zahara minha wa ma batan allahuma aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha amin ya rabbal alamin baraka allahu lii wa lakum fi lqur'ani aladim wa nafaani allahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikri alhakim aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu